Aliou Mbagala nuyu naa ñëpp ñi teew ci salle bi yëpp nuyu naa leen di euh, jaajëfal teewaay bi leen teew ci conférence de presse di leen dalal di am yëg-yëg lool ci. le fait qu'en un laps de temps décidions décidé conférence de presse mais Nous Sénégal nous Africa li monde entier merci et je suis à vous

déggee leen ko rendre leen ci hommage rendre leen ci hommage parce que ne pas ramener dans ni dama un moment de pause sa ma carrière mais terewul maa ngi jot ay messages saa su qui messagerie, qui téléphonie, qui Instagram qui Facebook fu ne pas faire fay jot ay messages yuy féddali di ma yokk a wan seen cofeel ci man des fois dama doon bu ma bu ma jékki-jékki di jot ay message ma ne waaw pourtant quand même raar naa waa ñii ak jamono ji bi muy doxee musique bi fu muy toll y a tellement d'artistes de très bons de très bonnes chanteuses de très bons chanteurs mais terewul seen cofeel ci man musul deñ telewul damay sentir que ni ñoom ñu ngi may bàyyee xel damay sentir ñu ngi naan ma d'accord effectuer un moment de pause mais xamal ni ñu ngi lay xaar ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi lay xaar donc xaar boobu ñu ma ñu may wan à travers les messages à travers les coups de fil wala yóbbante yi moo tax ma ne ah man foogoon naa sax dañ may fàtte ñun. Euh, mais euh, je me suis rendu compte que nous nga toujours dañu suivre au contraire nous ngi toujours patience pour me revenir de comme nous avons Lorsque nous tax un single d'abord pour nous. Nous ko nous Sénégal nous mieux qu'au monde entier mais derrière ce single comme ni ko Tafa waxee comme ni ko Alioune Badara waxee am na une surprise yu derrière muy un album entier boo xamante euh, c'est déjà enregistré ñu ngi mais xam ngeen fi ñu toll nii ak jamono Covid bi ñu nekk boo defee sa album dafa laaj tournée dafa laaj vraiment. Euh, def promotion boo xamante war ah a dem promotion présenter album bi mais on se dit dañuy rafet am yaakaar fii 2022 bi yàlla dinañu lii nga xamante ne sonal lool muy Covid bi te yàlla ko yàlla def xëy dinañu gën a mën ci ak ah. mais comme kenn mënu koo xaar ñu ne ah nañu def loo xamante ne en attendant mooy indi single pour nuyoo ko waa Sénégal waa Africa lépp pour wan leen ni maa mi ngeen yàggoon a bëgg ci seen xol xam leen nii man noonu laa leen bëggee ba fépp fu ma dem lépp lu may def fàttewu ma leen maa leen di bàyyee xel maa leen di bàyyee xel kon war na ma def benn opus bi indi leen ko pour wan leen que wan leen je suis là Cette main bi moom cette main est toujours là on va continuer la route incha allah ensemble man ak yow yi mënoon naa wax man ak yéen mais comme ni ma ko waxee ci sama njëlbéenu wax yëg-yëg bi may euh, gis à travers ñi nga xamante ñoom may bind ñoo ngi may woo téléphone ngi yóbbante dafa fort tellement dama ne duma wax man ak yéen damay jël way bi ma def ko man ak yow bu ko defee ku ci ne nga ya nga nga nga def ko sa wayu bopp mel na yow laay waxal loolu laa ci jublu loolu laa ci jublu ku nekk xam ne way bi bu la neexee mën nga ko nga moom ko mel na yow yaa ko moom tellement que rek laa mënoon def pour. dello yeg yëg bu fort boobu euh, fan yi am envers sama sama jëm envers man donc loolu rek la pour ñëw sa question ndax fan laa dëkk man maa ngi Thiès toujours Thiès moo moom laa dëkk comme d'habitude voilà mais Mbour moom voilà dañ fay ñëw rek jaar seen mbokk yi def suñu ay prestation mais je suis toujours à Thiès ni ma ñëwee mooy gannaaw ba ma nuyoo ak single bi li ciy topp mooy am na projet yeneen ñu ñu continuer suñu ay concert def concert yi présenter euh, voilà bëgg ànd ak fan si ànd ak moom ñuy def suñu ay soirée ay concert euh, voilà continuer def noonu waaw mais comme ni ma ko waxee comme Covid dafa xaw compliqué en ce moment xam ne ñu xoolee réew mi Sénégal tey jii variant bi nu mu xawee yokku franchement man dama ne damay def en même temps damay génne d'abord single bi li ci des nag dañuy xaarandi tuuti rek ah le temps que lii parce que tey situation bi je pense que permettre ñuy am ay rassemblement yu bari bu yàlla defee nag mu wàcc dinañu derrière def suñu ay concert def suñu ay soirée pour pour pour déwén changement style musical moi je dirais pas forcément parce que moi, je suis ngeen ko on nga xam le début du morceau musique commencé Je nga ci la musique a on un donc le style est toujours là le style Massane est toujours là C'est mon style la ba ma demee ba je fin ba parce que pour yëngal gars parce que dama pour namantiku je fais exprès def morceau bi vers la fin mu nek lu danse parce que je veux faire danser les gens ñi nga xamante ne dañoo ko depuis bi bu ma leen nee maa ngi nii salaamaaleykum ñëw naa buñ ma bu mu né maaleykum salam ba paré ma ne la ay ca ñoom ko tegaat ci ci ci temps ci affaire yi non la morceau bi loolu la rek mais je je ne pense pas que changement amna na mbalax la mbalax boo xam ne lu Massar la mais yeneen ak yeneen ñu ngi ñëw inshallah et pour répondre pour affaire accident yi ah accident man moom damay li ma ci xalaat li ma xalaat rek mooy ci loolu mooy nañu góorgóorlu dañuy ñaax suñu chauffeur yi nekk ci bi ñu ñu góorgóorlu ñu jàppale jàppale seen bopp jàppale client yi daw ndànk dal ndànk ah comme te xam ne dara jaru fi parax parax d'abord à conscience, avec une conscience qui est pour d'ailleurs. En hein, arrière à Tegin, je pense que vous avez un accident de l'eau D'accord. Donc, c'est des mecs, artistes qui sont là Le mec de l'eau, il y a chess. Chess, je veux dire, beaucoup de bonnes idées mais il y a une particularité qui a donné dans le Artistes qui sont là, il y a des mecs euh, ci lépp lu ñuy defar ah, bu dara xewee ñëppay ñëw teew ñëppay ñëw bokk ku ne sentinelle tu es impliqué loolu dafa yaay man dama judd fekk fa loolu man je peux même pas vous expliquer lu waral loolu. Euh, deuxièmement xëy na loolu waral na bi ñu yëgee ni maa ngi ñëw def sama kamba ñoom ñu sentir le besoin ñëw soutenir ma dooleel ma pour que Africa yëpp Sénégal Sénégal monde entier yëpp. Euh, yëg ni je suis là ñëw naa seen nag yëg-yëg la envers man euh, tamit seen euh, solidarité comme ni ñu ko waxee euh, pour rek dooleel la culture à Thiès pour wane ne le que ay artistes mën nañu wane beneen visage ah war nañu mën a de temps en temps ñu am ay solidarité entre eux di jàppalante di doolelante en tout cas waa Thiès ñu ngi koy def te maa ngi ciy sant yàlla te maa ngi leen ciy gërëm ñoom ñi nga xamante ne ñoo am yëpp ñëw ci jub jàppale ma ñëw taxaw ma dooleel ma ci sama vidéo muy Sanex ma di ko gërëm di ko sant ma di ko gërëm di ko sant Bella Ndeye Sine Ndeye Ndiaye Ange Baye Cheikh ak euh, sama ñoom Latir mooy ñëw bépp yi vraiment ñëpp sans oublier ñi nga xamante ne mooy tous tasar parce que noonu la xale yoo xam ñoo ne ci temps di def buzz ñoom aussi ñëw jàpp ci affaire yi danseuses yi euh, ñëpp daal ñëpp ñu participer ñëpp vraiment dañuy participer avec le cœur ma ci ma leen ci gërëm di leen ci sant euh, pour beneen question bi di Kumba Gawlo waaw Kumba ni ko dal vraiment euh, képp kuy artiste boo boo xamee li ci woy boo xamee li ci bëgg sa métier surtout que moom ni ñu ko gisee ni ñu ko xamee c'est une battante elle s'est battue ba yegg fi mu yegg gëm na boppam gëm na liggéeyam euh, te bëgg na li muy def boole ko caaxaan donc lii bu ko dalee da ngay yow en tant qu'artiste da nga naan man lii bu ma daloon imagine sentiment boobu nga yëg loolu rek nga yëg envers elle ci kaw loolu ma am une grande solidarité ci lu ko dal di ko ñaanal yàlla yàlla delloo ko baatam parce que Kumba dafa war a way ndax ñi muy bëggal dafa bëri ñi muy bëggal dafa bëri ba tey bu wayulee dina am ñoo xam dinañ wér ndax seen déggatuñu seen chanteuse moom aussi le fait que loolu di passion muy métier muy liggéeyam mu mun a dellu ci liggéeyam parce que nit ci sa liggéey ci sa passion rek ngay mun a épanouir je suis sûr que hmm, je suis sûr hein, que fi mu nekk tey épanouissement bi mu waroon am avoco parce que c'est ça sa passion loolu la bëgg loolu la bëgg di def donc damay ñaan yàlla yàlla delloo ko baatam muy bëggal ay fansam di bëggal waa Sénégal di bëggal bëggal waa àdduna parce que c'est une battante et elle mérite yàlla delloo ko baatam ba mu mu heureuse ci ci liggéeyam parce que vraiment euh, am na ñu koy xaar ci ci li muy def ñuy bëggal bari la.

parce que ku ku xam ne instant bi waa Flash mu toll mooy groupe dañu nekk ak moom aussi ci moment boo xamante ne yàlla dafa def continuer danga nga am aw sa yoon vraiment gérer say ay affaires personnelles après temps la ñu nekk continuer euh, am na leneen looy mener sa vie en ce moment mais terewul tey lañu gën a mën a déggante

donc dafa am lu jiitu affaire musique ñu nekk xale dugg ci musique def carrière ba benn moment euh, ñi xëy na gis seen bopp def def leneen dem ci donc loolu moo fi am aussi def ci bi ma def fondé un foyer hein. je pense que sama devoir mooy arrêté toujours que mangi ngi continuer di woy bëgg naa continuer di bégal les fans bu yàlla defee nag euh, te nekk na loo xamante ne nekk na suñu ñëpp suñu xel ak suñu xol bu ñu yàlla defee ñu am possibilité retrouver waat pour euh, bégal ñi nga xamante aussi dañu yàgg gis seen ci waa Flash on va le faire avec beaucoup de plaisir avec grand plaisir dinañ ko def mais fu mu àdduna moo demee noo xamante ne des fois euh, dina am ay situation xam ne doo doo ko mën a maîtriser yëpp suñu borom la mais nañu jàpp ni amul benn ay ñaaw-ñaaw ay ay ay problème yu yu tax ba ba tey jii bu ñu bëggoon euh, mobiliser waat pour àndandoo def lu rafet bëggal nit ñi euh, loolu tere ko amul y en pas voilà et pour ñëw ci dernière question bi mooy euh, problème affaire album bi loolu ma ciy wax rek mooy tey single laa ñëw indi damay bàyyi affaire album dañ koy bàyyi ba le moment venu on en reparlera ñu xam lan laa lan laa lan laa way ci album bi naka laa ci woyee ak ban style musical laa indi loolu moom surprise laa koy def incha allah. man bon mënuma wax ni arrêté naa xëy na dama gëj a génne yooyu voilà mais benn moment man dama sentiroon ni rek. Euh, dama war a fonder foyer yàlla dafa ma dafa def ma waroon am envie fondé foyer def dafa def doom ci kàttan yàlla te loolu ku ko ku xam loolu xam ne loolu rek chantier la chantier la je voulais me consacrer euh, à à ma petite famille gérer sama foyer vraiment dund loolu loolu laa loolu laa sant loolu ma def ko naturellement amul amul leen lu ma ci kii bi ma ko defee nag ba yàlla def na tey euh, euh, mun naa reprendre sama métier ci laa ñëwaat nii. léeg ah, ay waay xam naa genn wàll bi ma wax yëpp yéen laa xool macha allah macha allah dañoo jongama de xale yu jigéen <laughs> euh, ñun moom yàlla dafa def même même avant dañu def musique mais dañu doon jéem a def leneen à côté waaw parce que xam nañu musique Sénégal mooy loolu waaw ñëpp xam nañ ko. on s'est du jéem góorgóorlu organisé wu ba nga xamante on s'est toujours dit que ah nit daal da ngay da ngay jéem doo xool on sait jamais On ne sait jamais là dama ko doon toujours teg jiital ba ci au courant de ma carrière depuis tout le temps bu ma def bu aussi maa ngi def samay yeneen affaire à côté Donc loolu laa continuer

Euh, ba léegi nii noonu noonu la fa tëddee du leneen y a davantage d'artistes te pour man évolution la àdduna day dox euh, am réew nag mënul yem ci ñaar ñett waykat rek ñeenti waykat donc bu fekkee ni tey yàlla def na ba jamono mu am davantage d'artistes moo lay wan ni musique bi mu ngi évoluer ci benn ci d'une certaine manière te loolu dañ koy sant yàlla moo lay wan ni xale yi gën nañu am passion ci musique ñu ngi jéem nekk ay artistes di way c'est une très bonne chose et pour mon évolution la beneen affaire bi mooy euh, ndax je suis prête à signer ak euh, label yi fi nekk pourquoi pas bu ñu ma defee bu ñu ma tegalee ay propositions yoo xamante ni mën nañ ci liggéey je vais y aller y a pas de souci

Euh, mais li nga wax noonu lu ñu programmé la incha allah ñu ngi def euh, la grande soirée comeback muy au mois de novembre nag au mois de novembre incha allah ñu bëgg def euh, la grande soirée comeback pour présenter les titres de l'album aussi pour. vraiment que c'est sur sur terrain qui retourne sur la scène musicale et aussi pour euh, comme nous euh, euh, avons que nous on est toujours là Donc, on a décidé d'attendre jusqu'à novembre en temps où vraiment préparer quoi préparer le terrain bien préparer le terrain mais aussi parce que spectacle le ñu vraiment spectacle inédit wa incha allah bu ñu fi yàlla bàyyi on va on va on va lui leen préparer euh, spectacle inédit bu amul fenn pour le soirée dîner dîner spectacle bon pour voir nañu rek ñu ngi ciy bàyyi xel incha allah dinañ ci ñëwaat continuer ak gars yi nga xam dañu musique boobu. Légui, ak euh, est-ce que album bi li may préparer ndax dinañ ci sentir toujours musique bon ou pas toujours ba avec simple surprise lay doon xam les ne daal dinaa euh, je sais que dans cet album là pour tu tout euh, j'ai toujours euh, j'ai voulu rester moi-même euh, être sincère avec ni ma ni tout, aventure sais, la musique bi je voulais être rester vrai qui' ma ci la la présenter parce que dama absenté tu vois bi ma

c'est vrai que xalé yi am nañ seen maintenant ni ñuy seen façon ni ñuy wayee ni ñuy doxalee mais lépp rek euh, comme ni nga ko waxee rek mën na la nekk la mën nga ñëw maase ñoom waxtaan wax ak ñoom ci ñoom langage bi ñuy dégg c'est vrai mais tout en gardant sa sa personnalité waaw tey bu may ñëw di woy xale yi dinaa woy ñoom wàcc wàcc tolloog ñoom daal tolloog ñoom waxtaan ak ñoom ñoom ci way mais terewul dinaa garder li nga xamante ne mooy sama personnalité muy Ma Sané je pense que loolu bu amee je pense que tout ñëpp dina ko mën a déglu loolu laa yaakaar. au contraire tey laa gën a am envie way tey laa gën a mën a am envie mener carrière sama carrière mu jëm kanam mu ci yàlla jàppale justement yàlla def na ma génn dund France tuuti ah gis leneen dégg leneen dund leneen Sénégal laa jugee def naa fi carrière xam naa xam naa lu ñu fi jotoon a liggéey xam naa fi ko nit ñi teg ba nga xamante ni au contraire moi je je trouve que je me suis enrichie en matière de dans ma carrière le fait que ma génn dund leneen def leneen ak boole yi nga xamante moom la yàlla defoon ñu ñu liggéey ko loolu bu ko boolee je pense que expérience la boo xamante ni ça m'a beaucoup enrichi sama carrière ba j'ai envie de continuer de dévoiler li nga xamante ni moo moo moo moo ma arrivé ci diggante bi en fait loolu la man xawma lan la c'est-à-dire bu ñu waxee fi nga waroon toll pour man je suis bien hein je suis bien parce que Euh, dorénavant li nga jotoon a def am na nit ñi nga xamante ne dañ ko apprécier te macha allah bari nañu lool ñi ñi apprécier musique bi ñu def macha allah ndax musique boobu moo ñu yóbbu fu ne bu ñu mënee carrière boo xamante ne près de 30 ans li ñu def moo ñu yóbbu fu ne te aussi bu yàlla defee ñu tukki am leneen lu ñu gis lu ñu dund. Euh, je def naa ay scènes yoo xamante ne bokk ay artistes euh, def ay ay partage oui euh, mais ma jële ci enrichissement ci sama sama carrière je pense que loolu mooy musique man déjà enrichissement bi ngay enrichir en tant qu'artiste artiste le fait que ngay am ngay continuer musicalement ci ngay def loolu man laa jiital d'abord quoi loolu moom la li may proposé àdduna loolu moo gën a nekk lu gën a am solo ci man nit ñi ñu bari ñu ngi koy ñu ngi koy recevoir avec gaieté avec plaisir pour moi c'est ça la réussite en fait leneen lu ñëw rek leneen la quoi nañ fi yàlla bàyyi ñuy gudd fan Hein, di yàlla euh, di ñu sàmm ñuy continuer de faire plaisir ñi nga xam ne leer et vraiment ñu ngi sant yàlla voilà après euh, on cherche toujours à aller de l'avant hein, même même li ngay dégg ñi nga xam xëy na sax ñoo ma gën a nekk ci kaw ñu di dégg dañuy toujours continuer de bëgg di aller de l'avant parce que àdduna noonu la demee donc grâce à Fimala c'est je donne une petite année de l'avant, d'abord nous la def comme nous pouvons nous faire. Mais sachez que, euh, au contraire, moi, de me sentir euh, bonheur, plaisir que nous l'avons le fait que nous partageons avec nous, le fait que nous à expérience de ma petite télé, je n'ai pas nuit, je suis, je suis bien au contraire. Surprise à niveau surprise de la question.